ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala ngeen mën a jot moo mën a xam maa ngi tudd Babacar Niang eh, de leen sant de vraiment de rafetlu liggéey bi mais leen bu mu ci gën a amal solo mooy ci côté aspect lislaam bi nga xamante ni vraiment Masaalikul Jinaan bi tey defal na siggi na lislaam sigil na Sénégal Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba aussi vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla yokku leeram yàlla tas ko ci barkeel parce que sigil na l'islam sigil na Sénégal sigil na Afrique c'est vrai que les choses il y a des risques ici mais dafa am lu am solo parce que jullit aussi amul lu dul julli te nit fekkente ne da ngay woote sa ngëm te muy dëgg ci yow dëgg la damay laajte ndax nit ñi corona lañ lañ ragal wala suñ borom allah subhanahu wa taala lañu ragal képp nga xamante ni ñu ngi ñaan it musiba bi yàlla jëlee ko fi mais aspect bu ma gën a amal solo moi mooy aujourd'hui c'est-à-dire présente représentation de Masalikul Jinaan bii ñu def fii ni tey ak ligi ak sigil bu ñu sigil julliti lislaam ak sigil bu ñu sigil Sénégal vraiment Serigne Touba moi man mii de wax ak yow je suis un disciple de Tidiane je suis un disciple de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mais je suis fier aujourd'hui d'être on Sénégalais je suis fier vraiment nekk yor carte d'identité Sénégal ngir kan ngir Serigne Touba Maulana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu wax dëgg yàlla tey sama xol dafa fees parce que tey lii muy confirmer ne lii muy wane ne tey su doon waa Badar dekki neen ñëw fii nii war a taxaw dem xare ñi taxaw fii yëpp ñoom. dëggal leen seen bopp tey fas yéene leen nañ fas yéene nañ jël jaasi défendre islam aspect bi lu ma ci gën a neex lu ma gën a neex ngeen baal ma lu ma gën a neex si julli tey bi c'est symbolique histoire la nit waroo ragal corona yàlla suñu borom allah subhanahu wa taala lañ a ragal man lu ma ci gën a neex mooy tey Masaalikul Jinaan tey daf ñu sigil Masaalikul Jinaan ah Je suis talibé Cheikh. Je suis un disciple de Cherin Cheikh Ahmed Tidjansi Al Maktoum. Et je suis fier d'être l'être. Pourquoi Parce que Cherin Cheikh dafa am lu muy wax. Cherin Cheikh Ahmed Tidjansi Al Maktoum dafa am lu am solo lu muy wax mu ne dafa maa ngi fàttaliku koro ba mu demee Touba dem seeti suñu maam Abdoulahat Mbacké radiyallahu taala anhu ba mu ñëwee benn kàddu la wax wax bu am solo dafa ne dama ñëw jël si sama ndono. yéen it maa ngi leen di ñaan ngeen ñëw Tiwaawoon ngeen jël si seen données mais lu ma yitteel lu mu am solo mooy Masaalikul Jinaan bi nii tey daf ñu dimbale daf ñu sagal daf ñu suturaal dafa sigil islaam dafa sigil sénégalais ndax jullit bi ñu julli tey dafa nekk loo xamante ni c'est historique dafa nekk loo xamante ni jullit amoo lu dul julli amoo lu dul julli autre chose le yi ñuy wax risque yi ñuy wax naan moom moo nekk si jumaa yi mais supermarché yi moo ëpp risque pourquoi pas te nit ki boo demee war a dem julli gi da nga jàpp ba set sa lu safet xañ lu neex nga ñëw andi sa sa yaada jaamu suñu borom nañu ubbi jumaa yi dañu bàyyi caaxaan yàlla rek moom moo am moom rek moom moo jar tey nga ñëw nga dem dem wuti jubali dem di suñu borom mais lu mu ci yitteel man les Massalikul Jinaan d'aujourd'hui franchement je suis fier je suis un talibé mais je suis fier de wax jërëjëf Seex Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu ñu ngi ñaan yàlla yàlla yokku leeram yàlla gën ko sagal parce que daf ñu sagal sagal na islam sagal na Sénégal sagal na Afrique sagal na monde bi jërëjëf Serigne Touba man maa ko wax man taalibi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum benn wax bu am solo mooy Cheikh Ahmadou Bamba ndonoom Jusqu'à présent, moi, je dis que les 99% de nos déchets Amadou Bamba, jusqu'à présent, Sénégal exploité guñ ko te il est temps ñu exploité ko te lii dafa dugg ci l'histoire nit yàlla nga war a ragal mais waroo ragal corona yàlla nga war a ragal mais waroo ragal feebar ils se disent la vérité gis nañ ñuy taxaw fii ce sont des doomi aadama yu nga xamante ni nit boo amee ngëm te muy dëgg ci yow amul dara luy taxaw sa kanam ngay gis ngay gis loo xamante ni benn jafe-jafe sa